collège dafa nekk benn entité boo xam ni duñu ñaari nit duñu ñetti nit mais ñun ñëpp benn nit lañu collège su kenn soxlaat ñëppay laxasaayu jóg collège des femmes muy entité boo xam ni kuréel boo xam ni jigéen ñi dañ fay daje jigéenu APR yi di fa waxtaane di fa nas di fa noccee di harmoniser ba tax ba jigéenu APR yi nga xam ne ñi ngi collège des femmes dematuñu fenn di xëccoo dematuñu fenn di xuloo dematuñu fenn di jaay yëfu baadoo la gàcc ngaalaama waa collège gërëm naa leen sant naa leen parce que su ngeen meloon neneen ah kon dina doy waar am ngeen fulla am ngeen fayda mais nag ñu ànd àndu ngor àndu égal dignité man mi nga xam ne dañ ma jiital may seen coordonnatrice pourtant Adja Ndeye Daba Mbow elle est première vice-présidente du conseil départemental mais su ñëwee day topp sama ginnaaw donc loolu mooy ànd bopp ñëpp def benn ñu topp ci ginnaaw coordonnatrice ñu doxal ça ne veut pas dire que coordonnatrice bi mooy décider déedéet démocratie mooy am ci biir collège bi lu fi am dañ koy waxtaane xale bi ci gën a ndaw mën na proposé idée boo xam ne mooy bu baax bi ñun ñëpp ñu adopté ko su ngeen gisee ren lu tax defuñu conférence dañuy moytu yàq gaspillage parce que naam conférence baax na mais su mu defee lañ cay ñàkk ci xaalis la ñuy dépensé si logistique la ñuy dépensé ci ay nuróole ay yére la ñuy dépensé ci leneen ak leneen ñu ne ren kat loolu yëpp nañ ko boole toog def une organisation sobre maanaam ñu woote li ñu am yëpp ñu dajale ko jënd ci ay denrées séddale ko loolu moo waral ren kenn déglu ci conférence ndaxte président Macky Sall moo décrété année sociale. mu fekk ñu ci nag ndax collège euh, devise moom mooy solidarité et partage moo tax ñu ne naam jege wax nañu askan bi mais nañu gën a gën a jege askan bi tey jii nag lii su amee mooy collège euh, am na ku ko wax léegi ay jigéen ñu gëm seen bopp ñoo ci nekk daanaka nag collège bi c'est très difficile parce que à part honorable Ndeye Daba Mbuub amul benn jigéen bu nekk ci collège yu boo xam ni am na ndombal tànk amul lu ñuy def dañu koy cotiser parce que macha allah takku nañu lool te jigéen ñi ngeen fi gis jigéen bu nekk minimum minimum li gën a ndaw boot na vingt cinq femmes moo tax lu ñuy def dañu naan nañ leen cotiser ku ne deux mille c'est la loi du nombre mille femmes su ku nekk cotisé 2000 on a facilement 2 millions. donc ñuy sant ñuy sant bu baax di sant suñu càmmiñoo yi di sant suñu responsable yi nekk Thiès. collège de la femme dafa am nu muy doxee ñun suñu responsable yi nekk Thiès la ñu am lu ñu xewle ñoom la ñuy dem seeti soluñu suñu dàll. dugg suñuy oto dem Dakar biro bureau ñu dugg fa parce que loolu suñ ko defee ñoom dinañu xeebal suñu ay kilifa te suñu ay kilifa lu ñu xewle taxaw nañ ci donc collège aussi dañu dañu baaxoo loolu ñuy ñaan président Macky Sall mu gestuwaat collège xam ne benn entité de femme mi ngi fi xëy na suñuy mbubu gàtt na xëy na néew nañu doole mais nag ñu ngi liggéey liggéey bu ci ayib parce que bi lépp ne teg collège de la femme moo jóg di animer la parti di animer la parti di massifier la parti di dugg ruqoo ruq biir Thiès di jëli nit ñi ndaxte dañuy yëngu ci développement aussi chaque mois dañuy daje boole suñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm def ay financement jigéen ñi dem liggéeyi di liggéeyi di ci gis seen bopp bu baax a baax donc noonu nga mën a def pour mën a téye sa ay nit ñu bari ñu ngi inquiété wu lii bi ngeen ko kii yeeg léegi yàggul mais lan moo tax ba ñii ñëpp nekk c'est parce que lu ñu liggéey la depuis longtemps d'une manière méthodique et organisée donc loo doxalul ak organisation ak méthode du dem collège nag noonu lay fonctionner collège bi nag ci transparence la ñuy dox parce que àndu jigéen boo gis ànd bi am ñetti at di gën di yokku c'est parce que naxaate amu fi dëgg la ci transparence la ñuy dox moo tax lañu am yëpp ñu jënd ko indi ko ci biir collège département euh, euh, permanence départementale ne ñëw leen li ñu am a ngi nii ñu bokk ko ñu bokk ko ndax àndu ngor lañu ñu ànd àndu égal dignité la ñu tey jii suñu naroon ñuut njaay mënoon nañu ne nañu woolee au responsable du collège jox leen ñu yóbbu dem séddale mais dañ ne déedéet fii lañ koy seddalee fii lañ koy defaree ba mu rafet di di remercier aussi mouvement des religieux de l'émergence ñoom ñoom dañoo féeteeg ñun ba pare wane ko xam nga lu gën a jafe ñeme féete te ñoom dañ koo ñeme ndax ay nitu yàlla la xam nañu fi dëgg gi nekk ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm ñëpp léegi nag ngeen toog ngeen toog ci kanam tuuti ñu commencé liggéey bi di wax ni que fii ay jigéenu président mack Sall rek moo fi nekk président Macky Sall ñun ñoo ko ñun ñoo koy imposé son deuxième quinquennat ñun ñoo koy imposer fii à Thiès les femmes du collège ñoo koy imposer parce que nag suñu dëkk bii duñ ko café duñu ko tayle parce que ñoo xam ni saaga sëriñ si lañ fi nekkee lakk violence saaga mais mais mais ñooñu suñu bàyyee ñoom fuñ jëm président ñun ñoo la ne doxalal ñun jigéenu Thiès ñoo la ne doxalal. jërëjëf. ñun dañ di jigéen nekk ay jigéenu président Macky Sall bokk APR liggéey lañu xam te liggéey lañu tàggat muy waa collège des femmes de l'APR dañ nañu nañu gëm suñu bopp ci loolu la doxee gis nga bi ñu commencé euh, liggéey euh, journée bii xaaruñu ci góor woowuñu ci góor. mais ñun jigéen ñi dañoo takk suñu sër ne dañuy liggéeyal suñu parce que réew mi moo ko laaj le président Macky Sall moo ñu ko laaj collège des femmes nag du lenn lu dul association wu femme pour lan dëggal suñu bopp ci biir réew mi xam na ni suñu réew mi jigéen ñi ñoo ko mën a defar góor ñi nag jéem nañu te lu ñuy jéem baax na mais li ci def jigéen ñoo ko moom ñoo ko war a yeggale te boobu la ñu nekk ndaxte nag boo la xoolee dëkk bi nga xam ne suñu président liggéey na ko le président Macky Sall liggéey na Sénégal fépp foo dugg ci biir Sénégal da fa fekk loxo Macky luy président Abdoulaye Wade wala beneen président doon def benn Macky def na ko ñett muy ci école muy ci hôpital muy lu mu doon kon kooku dañ koy gàccee ngaalaamal na ko ñun jigéen ñi ñi soxla beneen mandat ndax suñu réew lañu soxla dañoo bëgg un Sénégal prospère te ñi ngi ci yoon bi président mi ngi bi kon dañ ko koy joxaat xoolal ñun seetuñu intérêt personnel seetuñu intérêt kenn suñu dëkk la seet lu koy jëmlew kanam te gis nañu mi ngi koy liggéey kon li tax kooku ñu ko fee jëlee dañ ko fi teg mu yeggale lii mu commencé keneen door a na nag mel ni moom ñu ngi koy ñaan wala ku ko gën ndax fii ñu toll ni moom gisuñu ku ñu lu mu kon ñun jigéen nañu gën a taxaw te jël suñu doom yi nag commencé campagne bi ci biir kër gi suñu doom yi nañ leen génnee ci gatsa gatsa ñun xamuñu fitna président xamul fitna jigéen xamul fitna bu ñu amee fitna du ñu nelaw ndax suñuy doom kon nañu campagne suñu doom yi nañ leen wax ne gatsa gatsa baaxul reyante baaxul dañuy liggéey réew mi te président comme que mi ngi liggéey naka ndaw yi jox loxo. nañu jël les primo dem inscrire leen may ñaan nañu wax jeunesse su APR nañu jël les primo dem inscrire leen ñu voté ji képp ku war a mën a def transfert nañ ko def te ñu falaat suñu président Macky Sall bi ndax amuñu bu ko gën suñu bëggee un Sénégal ba nga xam ne ne day développé day prospère nañu falaat Macky Sall nekkuñu jaaxal ñu jaaxal ñu de. dañoo takk suñu sër nag di jàmbaarloog benn jeunesse bu nar a yàq réew mi duñu nangu kenn taal ko ndax dañ ko tabax ci 10 ans duñu bàyyi benn jeunesse ci muy de naa ne day taal réew mi duñ ko def te gis nga suñu sëriñ sii ci biir dëkk bi amuñu ku dul jàppale leen. damay jël exemple bi ci sama bopp man Seynabou ñëpp xamee woon nañ ma fët fët fët moo mën a dalal da ngay liggéey nit kuy liggéey da ngay dal ci dal la xam ñu nekk benn benn jigéen ñi nee na du ñu fukki jigéen benn jigéen lañu xàccandoo dóorandoo bugul kenn xiif bugul kenn mar bugul kenn mer lépp moom jigéen ñi rek a ko intéressé mosuñu gis jigéen bu mel ni moom. fii à Thiès gisaguñu ko képp ku fiy jigéen liggéey nag moom mais nag ba ma dalee ci moom laa xam ne ne fii laa war a yem war a doon bàyyi faalam rek liggéey te moom laay doon parce que ñëpp la bëgg di liggéeyal ñëpp jël jël jël responsabilité biir Thiès yëpp boot ñëpp la boot amul xaj ak seen ñëpp la na kaay leen ñu liggéey Macky Sall la ko ñor APR ko ñor Thiès ko ñor Sénégal moo ko ñor développement ko ñor jigéen ñee ko ñor kon vive Maram Diop Sylla waay. ñu ngi gërëm suñu coordinatrice la grande dame Adja Maram Diop Sylla une femme sociale digne yaru poli dal li ma naan mbërki démb si rajo Seydi Hadji Malick li muy def ci nit dafa garaaw tranquillité ak dal moom lay def ci nit te moom la def ci président conseil départemental def ko ci jigéenam alaaj Adja Maram Diop Sylla di wax la président Macky Sall les femmes de l'APR ñoo taxaw tey tey di suñu deuxième édition chaque année ñuy def journée sociale joxe ay kit ci néew du doole yi ndax moom moo décrété année sociale ba mu waxee année sociale jigéenu Thiès yi taxaw département bi ni ñoom dañuy ànd ak moom ci li président Macky Sall wax social bi buñ ko defee fii yamuñu fi ñu ngi koy ànd ak Adja Marème Diop si laa di def social ci kër yi di def social ci néew yi du doole yi di def social partout dans la région de Thiès di wax nag jigéenu collège yi taxaw nag ci seen kàddu laay waxe ci kàddu conseil départemental tamit laay waxee le président Macky Sall dama bëgg nga xoolaat bu baax a baax a baax a baax jigéenu collège yi dina liggéeyal guddi ak bëccëg te laajuñu la dërëm ñu ngi ci terrain yi ñu ngi ci inscription yi ñu ngi ci carte de euh, carte euh, d'identité yi ñu ngi ci primo votant yi fii ñu jëm muy deuxième quinquennat les femmes du collège dani duñu daw duñu duñu ñu temp duñu yoot dañuy waaxu jël quinquennat bi deuxième quinquennat bi teg ko ci loxo président Macky Sall les femmes du collège ñun ñoo volontaire ñooy fal Macky Sall au deuxième tour ñooy volontaire ñoo investir le président Macky Sall en 2024 dès le premier tour dinaa ni le soir du 24 euh, le soir le soir des élections 2024 inchallah l'histoire retiendra ici à Thiès les femmes du du collège ñooy taxawu jàppale Macky sàll wote nord wote ouest wote est jël këyit teg ko ci loxo Macky sàll ku nekk xam na ne weeru koor bu jotee lépp loo doon def ci baax lu baax danga ko war a yokk ku nekk xam na ne weeru koor bu jotee soo doon euh, jaamu yàlla benn danga ko war a def fukk. tubaar fakala macha allah Adja Marème Diop Sylla mi nga xam ne moom lañu àndal muy la président du collège des femmes ànd ak ñun ci social ànd na ak ñun ci loyauté waaye li ma wax sànq rek képp koo xam ne dangaa ñëw collège des femmes ak sa yaradiku dangaa ñëw collège des femmes ak sa ëppal soo ñëwee ba ci ba ci Adja Marème Diop Sylla wan nañu yar wan nañu teey wan nañu fulla wan nañu fayda ci biir collège des femmes waaye may xamal mbooloo mi fi teew yépp nag que ni collège des femmes loxo dakaa téye ni ko loxo téye mooy yàlla dafa dagal bi ñuy sos collège de femmes li benn leader jàppalee gu ñu woon suñu loxo la ñu jógee muy ñuy cotiser suñuy dërëm tànk di cotiser suñuy dërëm tànk Adja Marème Diop si laa bi ñu cotiser suñu bërë dërëm tànk ba pare dafa toog ci kaw taabal bi defal ñu chèque bu ne moot nañu damaa bëgg yéen jigéen kuréel bii ngeen def yéen ñëpp ngeen jóg ànd liggéey bi mu defee loolu ñuy def ay financement ci suñu biir suñu càmmeñ yu baax yi nga xamante ni ñu ngi nekk au niveau de la zone ouest bépp képp ku fi nekk di responsable képp ku fi nekk député képp ku fi nekk ministre képp ku fi nekk député jàppale nga le collège des femmes jaarale ko ci Adja Marème Diop Sylla Adja Marème Diop Sylla poosoon bënnul lépp luñ ko jox wàccewaat na ko ci femmes yi tubaab fakala macha allah chaque fin du mois boo ñëwee ci siège bi nga xam ne collège des femmes caaxaanuñu waaye itamit le président de la république da kaa doyloo le président de la république da ko wóolu li tax mu wóolu ko mooy mais Adja Marème daa ñëw fekk APR tasaaroo Thiès bi mu ñëwee dajale na jigéen ñi ne leen kaay leen ñu ànd liggéey liggéeyal le président de la république mais ànd nañ ko ci ànd nawle ak ànd gor kenn beddiwul sa moroom lii ñuy fii tey nag Adja Marème dafay dañuy def suñu asaka yéene parce que tey defoon conférence neex na torop woo woo ay conférencier neex na torop waaye jël li ñu am dugal ko ci askan wi defe naa moo ñu ëppal solo te président de la république loolu la bëgg politique sociale boobu muy def loolu la bëgg te loolu mu bëgg Adja Marème Diop Sylla ci lay dox suba ba ngoon